amatul lenn lu ñuy wax bu su ko neexee nag mu ñëw taxaw ne li ma bëgg la danaa ko def bu leen neexee ak bu leen naqaree non déedéet kilifa du waxee noonu. Mm. kilifa de bu leen neexee ak bu leen naqaree ndax kilifa euh, yàlla moo koy tànn nguur yàlla moo koy joxe. wax na jarag bi waaw déedéet xam nga war na waxtaan waxam rek te li ma bëgg rek mooy réew mi am jàmm. ndax man damay dem te su ma sañoon bàyyee leen jàmm. mais nag est-ce que nekkul kon ñi nga xam ne jàmm mais opposition bi ñoo bëggul. jàmm waaye yow bu bëggee ret moom moom moom. na woote nag ba tey mi ngi woote waaye déglu ma déglu ma. mi ngi sëñ Fallou dama ne tey bu ma la fekk ko toog ma ne ma toj sa nopp bi tey ba pare ne la ne la ne la baal ma doo mën a baale noonu da ngay fayu ba pare kay door ñu door seet lu ñuy def hmm. yow ñi ngi taxaw ñëpp di xaar pour de war a dem élection mu annulé mu annulé annulé xooli ñëpp tàng mu mu annulé élection yi mu yàgg mu waat leen kat bu lu ñuy wuti ci moom bu ñu demee lan lañ fay wuti lu gàcce ku fa dem ci ñoom gàcce nga fay jëlee xam nañu loolu lu ñu fay defi léegi la muy dialogue na ko dialogue ak ñi mu arrangé. ngeen arrangé wu leen. déedéet non arrangé wuñu ndax li wér te wóor mooy moom jëm boppam dañoo bëgg ne lii lañ bëgg mu ne li ngeen bëgg bëgguma ko nit nag loo bëgg mu bañ ko bu la neexee la mu bëgg nga bañ ko li wér wóor mooy ñi nga xam ne ñoom tey jii ñoo woo aajowoo dialogue lu woon ñuy dem fële ci ci ci ci jam ñaajo mën nañ ko mën na ko woote palais am na salle boo xam ne si ne ñi nga xam ne opposition ñi nga xam ne ñoo dem ah, daa bëgg parce que gis nañ sëriñ bi ñëpp sëriñ bi dafa am ñoo xam ne seen yoon dafaa nekkul El Hadj Diouf ñëw si ñooñu seen yoon nekku ci Khalifa Niass gis na Ahmed Khalifa Niass lu wax seen leader bi xoolal gis nga nee na Macky de Ahmed Khalifa moom déglu Ahmed Khalifa moom sëñ bi hmm. kooku moom man jàppewuma ko dara déglu ma considéré wuma ko kilifa والله العظيم ناخ ني مو دوخي دو كليفه دينا دو دوخي ني اما خير فنياس ديدت ني مو دوخي ماكي دير دور وا غيسكا مان واخ دغ يالا احمد خليفه مان مان مونوما كومبراندر با نيت لا بوم بالي وا مونوما كومبراندر با نيت لا كليفه غو تولني موم بوك في مو بوك كين كون خام اي مامم خام اي وايجورم امنا يو خني مومكو غيسغا غيسغا ورسغو ادنا جيرول دارا واو ناخ سيرن توبا داي واخني képp koo xam ne dangay jël sa àdduna jëndee ko sa alaxira dana la wex xat man daa a nuurun bi du jaa sa yen waaw man mi ngi wax ci kun kaati man hmm. donc kon euh, mhm. waaw kon euh, kilifay diine yi nañu bàyyi waale xel xam ne askan wi jàmm la ñu bëgg hmm. askan wi seenu njaboot la ñu askan wi ñooy Afrique askan wi ñooy Sénégal askan wi nañu leen dimbali. Mm. la ñu bëgg ñu dem ceek ñoom. kenn yàqul dara kenn taalul dara xam nga lu ñu bëgg mooy Macky Sall lillahi wa rasulihi dimbali ñu te yàlla rekk tax ndax léegi comme wax nañu wax wax wax wax wax mënuñu dara dañu ñëw saraxu léegi lillahi wa rasulihi nga dimbali ñu ngir yàlla ah. nga bàyyi ñi nga xam ne si ne ñoom la conseil constitutionnel dogal ne ñooy dem nga bàyyi leen ñu dem ngir yàlla. sonn nañ de sëñ fi nga nekkoon dafa am solo. waaw si Ahmed Khalifa bi. dafa problème ak Sonko wala kon peut-être Sonko do def dara señ bi. maam Ahmad Sonko teew fa. waye Ahmad euh, Khalifa turum gën na fa fa si ahmad ni tamit waaw ndaysan gor sosu Sonko man sumay wax ba tuddu ko sax wallahi alazim damay melne ko xamne dañ ma sexal glace sama deun xol bu sedd bu may am. Hmm. waaw gis nga jëm joju kep ko xamne bëgg sa bëgg nga sa sutura xalweeku hmm. bëccëg. del dal ci kaw Ousmane Sonko wallahi la azim ak koo mën a doon. billahi barki ahmadul xadim dama ne la dama ne la man dég man déglu ma man loo ma laaj rek lu ma ci xam danaa la tontu waaye Ousmane Sonko moom dafa bokk ci jëmm yoo xam ne yàlla gis nga suñu borom ni mu defee kilifay diine yii nii ñu toog yor ay tariixa mm. nit ñi gëm leen mm. noonu nii la fi wàccee Ousmane Sonko la kilifay diine yi yoroon yàlla moo leen ko jox Ousmane lii mu yor yàlla moo ko ko jox. nit nag kilifa nag yàlla du ne askan sàngam ñooy doon ay wàlliyu mm. askan sàngam ñooy doon nangam askan sa déedéet yàlla mooy seet lu ko neex. mu mm. def ko ab jaamam. nañ ko ko nangul Ahmed Khalifa euh, xam nga lan mooy mbiram moom xam naa ne coow rek moom coow daal bokk na ci li li muy gën a bëgg maanaam nekk di ngar-ngari ci loo xam ne góoru ci sax nekk di ci génne kàddoom dialogue bi tey jii bu ca demee. yow régime bii nga àndaloon dem nañ ba daanu nañ. jeexal na tàkk àndul ak kan waaw moo moo waaye bërki Dembo Ndiaye lu mu fi toog fii ci euh, ah, bi bi kii demee Kaolack xaw ma mu fekk fa di wax Macky Sall ne ko yow mu xame nañ ndeysaan mu ne ko waa ah, kon baax na jërëjëf loo neex defal ci kilifa diine kilifa diine day am lu ko maamam bàyyee mm. muy kurus ga ak derba donte nag war nga wax nag ci sa opinion mm. li nga war a wax waaye dafa am loo xam ne nag xaaruñ la foofu Ahmed xalifa xaar nañ ko feneen fu dul topp ci deru Pastef ak deru waa waa waa ñu ànd ak Ousmane Sonko. Mm. di di di di wax di dal ci seen kaw. gàcce rek lañ ciy jëlee wallahi lazim ak euh, génne la sa ay mbóot yoo xam ne ay yu nëbbu woon la ndax nag ñun dañu xam lu bari kon donc na bàyyi jàmbur te moytandiku bu baax a baax a baax a baax a baax. dañ la woo dialogue boo ñëwee. jàkkaarloo la ki nga war a jàkkaarlool non dama ne la na jàkkaarloog na jàkkaarloog Macky Sall ne ko. Hmm, waxtaanee si Macky euh, yow réew mi ñoo la tànnoon nga nekk ak ñoom nekkin bu rafet. Hmm. yor leen yorin bu rafet. Hmm. dem nga ba jeexal am na ñoo xam ne si ne yoon ñoo leen tànn ne ñii réew mi ñëpp ñoo tànn pour ñu war a dem pour pour ñu war a dem pour pour pour pour. bëre ji joŋante ji. fexeel a gaaw meilleur délai na mu te na mu gën a gaawee nga bàyyi leen ñu dem loolu mooy jàmm ndax kenn ku ne gis nga réew mi jafe-jafe yi gàllankoor yi yàqu-yàqu yi gis nga lii kanam lay jëm waaye du deltu gannaaw kon nag deltuwaatal gannaaw nga xam ne yow de doole ji nga am yàlla moo la ko jox. Mm. comme yàlla moo la dénk nag ci ndax xulillahuma malikal mulki maanaam nguur yàlla moo koy joxe. te ci te ci jëmmam lay jël. Mm. ci jëmmam lay jël nguur jox la ko. Mm. ngay buur di kon loolu kon waroo koo fàtte. Mm. nga xam ne fal nañ la falin wu rafet dem nga bay jeexal kon fexee la góor góor lu rikk waay sàll nga joxewaat réew mi ci jàmm dem sàll leen dem toogi. alors ñëpp xaar ko ci loolu defu ko nag mu ñëw naan Macky da ngaa war a dóor dóoreel bul bul am yërmande yooyu. may wax ndeysaan ñëpp toog mu dem toog fa jigéen ña nekk yor téléphone am di di di di di ngacc nga ci di xool mel ne mel ne gone gu ndaw loolu mooy lan kilifa dafa am lu moom de te wallahi lazim du gone de du gone de mag la de mag nag wolof dafa lépp ne ku dem ku dem mag dem ku demut mag dem eh. li mu dundoon mën naa am mu dundaat ko mën naa mi du ko dundaat dañ koy ñaanal yàlla nag mu dund ko hmm. waaye nag na fexe góorgóor lu baax baax xam ne ay atam mi ngi dem hmm. kon li ko war rek mooy xool lu baax ci réew mi di ko mu di ko def gis nga képp koo xam ne yaa ngi seetaan musiba ba musiba ba moom mu takk hmm. te nga war caa wax waxuloo ca lépp loo xam ne am na ci rek yaa ngi am nga sa pas responsable ci ci ci mbir moom mm. kon maa ngi sàkk mu gën a delloo si xelam te gën a wax ak réew mi su fekkee bu waxee dina ko dégg. Mm. kon na gën a góorgóorlu baax mu mu mu mu wax ndax tey fi mu féetee réew mi ku mel ne Pierre ay euh, Pierre Goudiaby féetewul foofu réew mi. ndax Pierre bi kenn ku ne xam na ne jàmbaar la nekkoon nit ku baax di borom wërsëg. Mm. nekk koo xam ne. société yu bari amee na ko fi. Mm. bari na lu liggéey ci réew mi loo xam ne moo ko fi def. ma mm. bitim réew ak fenn fu ne. Mm. xam nañ ko fu ne. kon day mag gis nga mag boo gisee mag ñi mag ñi de la mag mat naa ba cim réew. mooy am na loo xam ne su xewee mag moo koy taxaw def ko. même biir kër gi ngeen nekk am na loo xam ne su fi xewee dañ naan xanaa diw néew fi woon. xanaa bi muy xew diw nekku fi na xam nañ ne kooku bu fi nekkee lii warut a am. Mm. kon mag la mag la na xam ne mag la la mu war a doxal mu doxal ko. te te te te bàyyi yenn yi yenn yi yenn rambaaj yeeg yenn seytaane yi na ko na ko bàyyi te xam ne wuñ ko loolu daal. Mm-hmm. alors mm-hmm. Euh, sëñ bi yéen lu ma tax démb demoo leen parce que doon naa leen fa xaar quand même euh, gisuñu leen si li na xam nekk moo di waxtaan wi. bu ñu fa demee lu ñu fay wuti. pour ngeen wax président Macky Sall see ñetti dëgg su nekkee ña fa dem mënuñu ko wax. yéen ngeen dem wax leen ko ñetti dëgg bind élection yi bind nañ ko ay lettre envoyé ko ko. ay yoni yoni yoon wax ak moom ne ko waxal ci élection yi lii. tontuwu leen tontuwul dégg nga kon dafa def dialogue maanaam hmm. dafa def. mais loolu lépp la boole dafa def jëfinu si yéen si dialogue loolu lépp la woote maanaam loolu lépp la dajale. parce que mënul tontu ku nekk woo leen si dialogue. na na leen ci ah, na leen woo na leen woo fële na leen woo pale na mu woo journaliste yi ñëw toog laaj ñu ja ñëpp di jàkkaarloo ñu def ko direct. Mm. nee na woo pale ñu ñëw jàkkaarloo moom ñëpp di dégg. dafa am waxtaanu biir néeg ak waxtaanu ëtt. ak waxtaanu penc. Mm. Macky Sall na waxtaanu penc mais mu yóbboon ci penc ma waxtaanu biir néeg la mooy lu mu war a waxtaanee ak ñi mu war a waxtaanal ba pare nag mu àpp ko ci ñaari fan. lii sax mënoo ko def sax ci une semaine. Mm. ñoom ñëpp kenn ku ne mën naa taxaw jël kàddu ñenn ñenn dafay jël kàddu ñennat mën ko yokk ñennat mën nañ ko yokk te lu nga koy gën a yokk délai bi di gën a weesu fii ak le 2 avril dama ne moom daal conseil constitutionnel ñi nga xam ne ñoom ñoo ngar dànjoo mbiri voté yi hmm. nañu bind wax ak Macky Sall te bañ koo envoyé message dañ koy woo téléphone ba mu sone bu nanguut a jël ñu fekk ko foofu dem fekk ko fa ne señ bi en en woo naa la message naa la nga liir message bi teg ko ma woo la euh, appel appel nga jël appel bi def ko.